mbokk yi ñuy teewlu ci Leral TV ak Leral point net dalee na jàmm seen débriefing de la semaine maanaam lépp li nga xamante ne dafay actualité di fait marquant ci biir semaine bi ñu fas yéene ko dégtal ci biir Leral TV ak Leral point net actualité de la semaine ñu koy defee à chaque fois dañ koy dooree nekk ak communiqué bi nag nekk ñetti téeméeri communiqué bi nga xamante ne mu ngi bàyyee ko fële ci ministère de la santé de l' action bi téeméer ak euh, juróom fukk ak ñeent ñoo ci ñëw amee doomu jàngoro bi ci ñoom juróom benn fukk yi nekk ay contact ñi nga xam ne nag juróom ñeent fukk ak ñeent yi nekk ay ka communautaire juróom ñeent fukk ak juróom benn ñoo ci daal di wéet ci jàngoro mbas bi fanweer ak euh, ñett ñoo nekk ay cas joo xamante ne jamono ji ñoo nekk en réanimation ñi nga xam ne tamit ci bésu tey bi euh, doom benn doomu aadama daal di seen si ñàkk bakkanam altine ñu ngi amoon téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay ka juróom benn daal di ci faatu talaata ñu am juróom benn fukk ak juróom-benn ci ay cas benn doomu aadama daal di ciy ñàkk bakkanam àllarba ñu am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay cas juróom-benn daal di ciy faatu mu takkul lool. alxames ñu am téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay ka ñett daal di ciy ñàkk eh, seen bakken ajjuma téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci daal di amee doomu jàngoro bi juróom daal di ñàkk seen bakken eh, buñ ko nag daal di rek ñu xam le nag eh, tey ci bésu samedi bi tamit ñu xam le comme ni leen ko waxee téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoo ci ñëw am doomu jàngoro mbas bi altine ba tey ci samedi bi ñuy xam le ñaar fukki doomu aadama ak ñaar daal dinañuy faatu ci feebaru mbas mi semaine bi yëpp nag bu ñu regroupé cas yi nga xamante ne am nañ ko maanaam comme niñ leen ko waxee altine ba tey ci samedi bi juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom la ñu am ci ay cas ñaar fukk ak ñaar ñoo ci daal di rek faatu mbas mi nag bi mu ganisee si réew mi ba léegi ñu nga xam ne jamono ji Sénégal am na lu toll ci fukki junne ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak ñaar ñett ci ay cas ci ñoom juróom fukki junne ak juróom benn ak juróom téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay doomu aadama yu ci daal di wér la ñu am di xam le nag fanweer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ci daal di rek faatu jamono ji ñu wéyee seen faj ñu mën ko rek xayma ci junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy euh, situation du jour ci bésu tey bi waaye tamit tamit altine ba samedi defal nañ leen rek euh, totalu yi nga xamante ne daal dinañ koy am mu nekk nag li nga xamante ne nag moom mooy tolluwaay jàngoro ji fii ci réew mi leneen loo xamante ne nag fasoon na lool ci biir semaine bi di ki nga xamante ne moom mooy député Bara Dolly gannaaw nag bu ko suñu naataangoo mu Thioune daal di daralee fii ci kër gi ci euh, émission bi nga xamante ne nag moom mooy euh, 12 minutes chrono daal di yekk nag lu mel ni xeme ki nga xamante ne moo fi nekkoon njiital conseil économique social et environnemental di Aminata Touré waaye nag yemu ca daal di ko daal di rek xamle tëj ba tëj ki nga xamante ne nag moom moo jur sa taaw bu jigéen loolee nag nekk na koo xamante ne sénégalais yi duñ ko baal benn yoon li nga xamante ne daal dina koy def moom mi nga xamante ne moom mooy Mimi Touré gannaaw ba mu nekkee jëriñ yi nga xamante ne moom lañ dénkoon fii ci réew mi lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu justice mu nekkoon nag ay kàddu yoo xamante ne Bara Dolly yëkkati woon ko ci biir semaine bi jagleel ko ki nga xamante ne nag moom mooy Aminata Touré ak tiis gu dal ci presse sénégalaise fële nga xamante ne nag moom mooy ca diwaanu Mbour ki nga xamante ne moom mooy Pape Ndiawar Dieye nekk journaliste correspondant bu Sen TV ak Zig FM ci groupe des médias la daal di bokk mu daal di ñàkk bakkanam ci àjjuma bi fii nga xamante ne nag moom mooy ci hôpital Abass Ndao nekk fii ci diwaanu Ndakaaru gannaaw nekk ba mu feebaree ñu yóbbu ko hôpital euh, bu Grand Mbour mu daal di sonn lool ñu ko fii nga xamante ne nag moom mooy Abass Ndao mu ñàkk bakkanam Pam Ndiawar Dieye ci fàttali tamit nekkoon na correspondant Walf Grand Place waaye itam moom moom moomee moo jurde woon nag collectif ba ëmb journaliste yi nekkee fële ca diwaanu Mbour moom moomee Pape Dioye dinañ ko jëbal boromam nag fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Touba mu nekk këram gu mujj presse sénégalaise bi yëpp képp koo xamante ne da ngay taskatu xibaar ñu ngi lay jaale ki nga xamante ne moom mooy Pape Ndiawar Dieye beneen tiis boo xamante ne tamit dal na ci biir euh, semaine bi presse sénégalaise bokk na tam ci gen àdduna journaliste groupe Futur Média Ibrahima Khalil euh, seen moom moom nga xamante ne nag nekkoon na euh, koo xamante ne dafa faatu ci altine bi ay atam nag ñu mënoon koo xayma ci juróom fukk ak juróom mu faatu fa li nga xamante ne moom mooy ca Tiwaawan gannaaw nag ba ko ab feebar bu yàgg daal di tërale moom moomee nekkoon correspondant RFM fa li nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Louga waaye tamit ay at mu nekk foofee nga xamante ne moom mooy ca Louga di fa def liggéey bu am solo waaye itam nekkoon na fa nga xamante ne moom mooy ci IGFM moom euh, mi nga xamante ne nag moom mooy Ibrahima Khalil Sène ñu koy jaale presse sénégalaise bi yëpp na nga nekk ay perte yoo xamante ne daal dinañ leen di ñàkk ci biir semaine bi. gouvernement bu Sénégal daal di teg nag a programme bu yees faskee yéene nag janoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi weer wu jot ñaar yoon lay fas ne am bi nga xamante ne jàppoon nañ ko ci biir semaine bi mujjul am li ko waral nag di génn àdduna ki nga xamante ne moom mooy secrétaire général bu ministre de l' du plan et de la euh, coopération mu daal di nag ñàkk bakkanam euh, gannaaw rek ba ñu jàppee moom mooy ndaje ci alxames bi euh, boobee ndaje nag ñu xam xamle jëwriñ ji nga xamante ne moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllu économie di ak yor lépp lu ci budget moom moomee ñoom ñooñee nag ñoo fas yéene woon a ak ñi nga xamante ñoom ñooy taskatu xabaar yi ngir nag seen laaj ak seen i tontu mujjul am li ko waral nag di génn àdduna ñu leen ko waxee ki nga xamante ne nag général bu ministre de l' et du plan et de la coopération message Noël nu muy amee at ki nga xamante ne monseigneur Benjamin Ndiaye doon na rek amal li nga xamante ne boo xamante ne tradition la fii ci réew mi képp koo xamante ne rek da ngay doomu jullit wala sax catholique euh, daal di ngay rek teewlu ba ba message nga xamante ne nag at bu jot dañuy faral di ko nemmeeku fii ci Sénégal ab doxum ñaxtu boo xamante ne ñi di artistes yi amaloon nañ ko fële ca place de la nation ci biir semaine bi gannaaw rek ba ñu daje ak ki nga xamante ne moom mooy Antoine Félix Diome nangul woon moom ndajee waaye tamit ñu ngi xamle nanguwu ko waaye teewul benn yoon ñi di artistes yi daal génn ci mbedd yi du benn violence boo xamante ne nag nemmeeku nañ ko ci moomee ndaje ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs yi euh, daal dinañu génn naqarlu jamono ji situation yi nga xamante ne dañ koy dund ñu nekk nag ci jamonoy feet ñu tëjalee lépp loo xamante ne dafay bërëb bu ñu war a tëggee Idrissa Seck njiital conseil économique social et environnemental mu ngi gën di étouffer li nga xamante ne moom mooy boobee cabinet euh, moom moomee daal dinay tabb ki nga xamante ne nag moom mooy Ababacar Gueye mu nekk euh, chef de cabinet et conseil spécial fële nga xamante moom mooy conseil économique social et environnemental As Babacar Seye moom moomee xamle dafa doon wër nag ci plateau de télévision yi di défendre ki nga xamante ne moom mooy leader bu réew mi waaye la ko Idriss Seck daal di rek récompensé mu nekk ab poste boo xamante ne ñu bëri dañu jàpp ne daal dina koy eh, mérité ci fàttali nag As Babacar Gueye moom moo nekkoon nag chef de cabinet bu ministre Omar eh, Gueye gannaaw ba mu nekkee rek ci li nga xamante ne moom mooy régime bu Wade Idriss Seck daal di quitté boobee mouvance présidentielle moom moom tamit daal di démissionné ngir rek topp ki nga xamante nag moom mooy Idrissa Seck. Idrissa Seck di wéy di fale fale nga xamante ne moom mooy ci conseil économique social et environnemental ci biir sama itam fal na ki nga xamante ne nag moom mooy docteur Bamba Sissoko ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Mbaye nekkoon euh, directeur général bu Sonatel euh, nekk ñoom ñaan ñoo ñëw mu fal leen ñu nekk ay conseillers spéciaux. ki nga xamante ni moom mooy Ousmane a Ba mu daal di koy rek tabb mu nekk secrétaire général adjoint fële ca conseil social et environnemental loolee lépp am ci biir semaine bi. Euh, beneen nomination xamante ni nag daal dinay lool askan bi mu nekk bu ki nga xamante ni nag moom mooy Talla Sylla euh, président Macky Sall daal di koy tabb mu nekk li nga xamante ne moom mooy conseil spécial boobee décision nag ñuy xam ne njiitu réew mi daal dina ko doon def ñetti weer ca gannaaw waaye nag fësaluñu ko woon alxames la ñu daal di fësal boobee décision loolee nag ñu bëri ci Sénégalais daal di ci am ay gis-gis yu wuute dem nañ sax ba ne dinañ xaar yeneen i nomination yu ci mel ni bu ki nga xamante ne moom mooy leader bu grand parti di mali Gakou autopont bu Yoff ñu démarré woon li nga xamante ne moom mooy travaux yi ci eh, weeru décembre atum mu daal dee ci biir semaine bi àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre ki nga xamante ne moom mooy jëriñ ju yor lépp lu jëm eh, ci wàllu dem bi ak dikk bi fii ci Sénégal di ki nga xamante ne nag moom moo amaloon boobee inauguration fa li nga xamante ne nag moom mooy ca diwaanu Yoff ñuy xamle benn at la boobee liggéey daal dee def ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo boo eh, bokk ci boobee liggéey di Ageroute di rafetlu bu baax a baax liggéey boobee di yéene na nag yombal dem bi ak dëkk bi fa li nga xamante ne moom mooy ca diwaanu a baax boobee liggéey nga xamante ne nag daal ne nag daal dinay am ci biir semaine bi mu nekk avion boo xamante ne moo ko di amal ki nga xamante ne nag moom mooy mu mel nag ñu daal di ne daal di euh, respecté wul mesures yi nekk kàddu yi doyen des juges gannaaw ba mu janoo ko ñoom di xam ne nag homicide involontaire dañ leen di ñoom ñooñee ñëpp ndaxte appareil boobee waroon leen a sax daal di génne ci circulation bi waaye nag ANACIM moo taxaw daal di wax ne li nga xamante ne moom mooy seen agrément moo ngi en cours ngir ñu yeesalaat ko loolee tax sax ba ñu bàyyi appareil bu Sénégal Air boobu mu daal di wéyal ab na sax ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu Sénégal Air di Gérald Gabriel Diop moom mi nag ñu ngi fàttali am na ab crash boo xamante ne beneen daal dina ci dooleeku ba juróom-ñaar daal ci ciy rek faat cybercriminalité fii ci Sénégal ay doomu Nigéria seen ub lim toll ci ñeent fukk ak ñaar la ñu teg loxo fële nga xamante ne nag moom mooy ca diwaanu Mbour jàpp Sali ñoom ñooñee doon amal foofu ay ñaawteef def lu toll ci lu ëpp sax téeméeri doomu dama ci ay victimes ay plainte yu bari la ñu déposé woon ñoom ñooñee police daal di leen a teg loxo ci biir semaine ba ñu demee sa seenu bërëb daal dinañ fay fekk ñaar fukk ak juróom-ñaar ay ordinateur waaye itam juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay téléphone portable ci seenu kër belge bi nga xamante ne daal dinañ koy faat fële ca diwaanu Thiès ki amal li nga ne nag yoon daal dina koy teg loxo ak jabaram bi nga xamante ne moom mooy première soxnaam boobee nekk ab doomu Sénégal ñoom ñaar ñooñu nag la ñuy njort ne ñoo daal di rek li ni mel gannaaw ba ñu faatee ki nga xamante ne moom mooy José José sax ñuy xam le nag dañ ko suuloon faat ko laataa rek ñuy amal li nga xamante ne moom mooy màggal bu Touba lañ ko daal di faat mbir mi ab enquête daal dinay fësal ba ñu teg loxo ki nga xam xamante ne moom mooy borom këram ak kii nga xamante ne moom mooy soxnaam procès Dame Amar ak ñi nga xamante ne nag tegano leen leen loxo ci moomee mbir ci li nga xamante ne moom mooy àllarba bi ñu doon janoo ñi nga xamante ne ñoom ñuy àttekat daan nañ ko yóbbu ba fukki fan ak ci weeru bi ñu nekk boobee dossier nag ki nga xamante ne moom mooy waajur bu góor bu Iba Thiam daal di rek constitué partie civile Rougui Diawo nga xamante ne moo luy woon boobee bërëb Latir Ndour mi nga xamante ne moom mooy vigile bi ñoom ñooñu ñëpp nekk ay témoin ci boobee mbir waaye nag gannaaw ba a Amar doon euh, sàkku ak ñi mu àndal ab liberté provisoire maanaam bàyyim dëgg di ko ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy tribunal ba dañu daal di rek lànk ca Mali la ñuy dem benn doomu Sénégal bu doon yoo ci turu Fallou Thiam lañ fa daadee rek boom moom moomee nag bàyyeekoon fa la nga xamante ne moom mooy ca campement Ngexoox nekkoon ab chauffeur boo xamante ne ñu ngi ko faatoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk moom moomee nag ñuy xamle fédération sénégalais bi ëmb ñi nga xamante ne ñoom moo nekk ci diaspora bi yépp dañu daadee rek naqarlu boobee faat ba tax na sax ñuy sàkku ki nga xamante ne moo def li ni mel yoon daal di koy daan ñu fas kee ne ko keppee fële ca réew gannaaw ba ñu amaloon li nga xamante ne moom mooy couvre-feu ca moomee réew daal dinañ koy rek wàññi maanaam ñu allégé ko 18 heures lañ ko jàppoon ba 6 heures du matin wàññi nañ si nag ñaari waxtu yóbbu ko 20 heures ba 6 heures du matin loolu nag njiitu réew bu Mauritanie mu ko daal di xamle di xamle ne foofee ca Mauritanie li nga xamante ne moom mooy kaay dafay yokk ay bés yu jot jëm ci li nga xamante ne moom mooy feebaru mbas mi jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon seen débriefing de la semaine maanaam lépp li nga xamante ne dafay actualité di fait marquant ci biir semaine bi ñu leen ko doon dégtal ci biir leeral TV ak leeral point net di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous ba beneen leen jox rendez-vous ba beneen semaine incha allah di leen wax nag ngeen wéy di suivre ay programme yu leer